Euh, demuma demuma ca guddi ga dem bi ma defee tournage ba pare xaar ba mu ñëw moom Serigne Moustapha ma def ay commentaire ci ñëwam ba mu toog ba dal ba jël ko nañ arrêté continuer waxtaanam demuma ca ëllëg sa waaye dégg naa ko ndax am na xale bu ñoo wax Ali Diallo indil na ma vidéo bi déglu naa li capitaine wax wax bu am solo la gis nga sagal sa baay loolu aayul koy doom ju baax xam nga loolu mbay doonde koy sagal sa baay loolu aayul koy doom ju baax xam nga loolu parce que damay wax rek ah xaw ma nag euh, moo ne ci xelamam déet damay wax rek ah na leer boo toogee sa doom wax ñu ñëw ci teraanga ñi mu àndal ci chaise ci lu ba pare yëkkati alal jox la mais man man jooy naa ci fi ma ci jooyee mooy fi mu ne ku ñu gis amul keneen foofu li mu doon doon xaleel yëngal na xol yu bari te dalal na xelu baayam dalal na xelu baayam ndax doom bu jëlee engagement boobu te du wax kese mu jiital jëf teg ca wax sa xel dana dal su wax jiitoo mm-hmm. jëf doog a ñëw mm. xel dal mm. su wax ñëwee yem fa mm. xel du dal xaw ma dégg ngeen ma walla déggu mais xale bi jiital na wax mu am solo torop mu wëlbateku teg ca jëf ti te ah, euh, dañu wax ne Euh, liy dëggal wax mooy jëf mm-hmm. alfialu misdaaqu lisaan jëf mooy dëggal wax soo waxee ba tuur nit ki ba mu fees dal mu toog di la déglu nag ngay ne wa daf may fontoo waaye xale bi muy maam Cheikh wax na wax bu solo jox ko baayam baayam déggul ko attentivement matériel ba mu tudd lépp ak la nga xam ni indi na ko ci alal jébbal ko ko loolaa dëggal waxam mm-hmm. al fialu misdaaqu lisaan mm-hmm. mais su doon waxi kese baayam dana tiit waaye dafa jëf dafa wax moo tax euh, sëñ Moustapha jooy sikk ne ko ci la ko jooyloo fa gis nga nit nit dafa bariwul kàttan nit lu tuuti rekk da koy jooyloo ti am na fooy yëg ci yëg-yëgu mbir dootoo moom sa bopp jooy rek ay moo moo tax mu jooy ci li xale bi def jëf na wax na lépp méngoo na wax bi ma ko wax am na sol yàlla na ko yàlla dimbali bu mu juyoo baayam yàlla na ko yàlla dimbali bu mu juyoo baayam na ko yàlla dimbali moo ay rakkam ak ay bokkam buñ ak mbooleem mustarchid bu fi ne yàlla bu juyoo Moustapha yàlla bu ñu juyoo ak moom gis nga liggéey dafa métti te gis nga responsable yu mel noonu da leen di ñee fekk ñu ngi bëgga a dee ñu ngi bëgg a dee ndax liggéey beeg coono yeeg fële nit ñiy dëkkal ak mais man su ma doon Serigne Moustapha damay wut ko ma tëggal sabar ma fecc ko ba naaw li mu am mais nag yàlla mooy def eh, ki am ki am dara du xam li mu am ñi ko topp ñooy xam li mu am mais sëñ Moustapha eh, ci jamono ji ah waaye yow lu muy bëggati Moustapha ku ko ku ko bañ bañuloo ko mm-hmm. ku ko noonu noonuwoo ko ku ko soxore soxore ko maanaam dangaa bëgg a mel ni moom te mënoo mel ni moom te moom bëggul a mel ni kenn ah, waaw léegi lu kii lu ko lu mu deseeti way waratu waratu la xalaat sax dara mm-hmm. yow koo xam ni alal neel benn alal mbooloo xam-xam lépp a ci loxo sa loxo lépp ci sa loxo looy soxlaate keneen ki ngay xoolal koo xool may nga ko change koo wax ci moom may nga ko change parce que fi mu tollu yegg nga ci plafond bi yàlla may na la xam-xam yàlla may na la am-am yàlla may na la mbooloo mbooloo moo xam ne yow rek lañu gëm gëmunu kenn gëmunu kenn koy bu xam ko ku dul moom mbooloo moo yor sëñ kër Si lañu gëm mais ñoom ci sëñ Moustapha la ñëw est-ce que comprendre nga li ma ci sëñ Moustapha la ñu yem Moustapha nag moo xam ku muy amal affaire loolu mooy taalib sa sëriñ doo ko uutal sëriñ na nekk sa sëriñ moom mooy ut sëriñam moo xam mais sëriñ Moustapha ci jamono yi ñu toll ak jamono yi ñëw ak ba ba àdduna tukki su meree te wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yàlla jéppi ko nag bu meretee yàlla jéppi ko ci jamono yi nu muy mer ku muy xulool ku muy wax jëmee ci moom ku muy xas yemb na yow koo xam ni li nga yor li nga yor soo noon bëreet di dem li lay dar ci oto yow rek la lu soo yégee fa nga jëm la ngay wax ci xam-xam yow rek la ci yow rek la ne ilmi maay ay suma kuntu yet ba oni nga seet loolu lañu ñu fay financé nga génne sa poste moom du sëriñub laaj àddiyee du sëriñub eh, yaa may waxal xam-xam am am yàlla may na ko ko am mbooloo sëñ Moustapha daal léegi su ma gisee mu mere nit dama koy mere